Certes, e-, être une femme, c'est pas euh, voir ses règles, avoir des seins, avoir des fesses, euh, être mariée. Je suis désolée, être une femme, c'est tout d'abord dans le comportement, c'est dans la façon de voir, c'est dans la façon d'acceptation. Tu acceptes une vie qui n'est pas la tienne, mais tu acceptes. Si tu n'as pas, si tu n'es pas dans la logique ou dans la grandeur d'accepter une, une, une, vie qui n'est une vie tierce, qui n'est pas la tienne, une vie euh, voilà, qui n'est pas forcément euh, euh ton idéal, mais abstiens-toi De quel droit tu prends la vie des gens et puis tu rigoles Tu rigoles. Après toi, tu es là dans les autres, dans les autres réseaux. Je suis une femme. Femme, femme. Mais tu es une femme de quoi Tu es une femme de rien. Tu es une femme que dalle. Mais tu connais quoi de la vie d'une de, de, femme La plupart des gens qui, qui, qui sont en train de, de, publier le truc de mener la majeure et tout ça, mais elles, elles, elles savent même pas laver leur slip. C'est-à-dire, tu la vois sur les réseaux en mode... Parce qu'on a tous des réseaux. On est tous sur Internet, on voit tous la magouille. Vous savez, avant de venir devant vous, j'essaie au moins de mettre ma perruque. Mais quand vous n'êtes pas là, quand je suis pas là, que j'enlève ma perruque. Dieu seul sait, je mets une qui est trouée depuis Jérusalem. Parce que c'est la vie vraie, qui est hors, réseaux sociaux. Maintenant, quand je sais que je dois vous voir, là, je me crée une image, je suis là, euh, mais vite, ma mère, je jure que si c'est pas vous, j'étais couchée Dieu seul sait comment je suis froissée. Mais c'est facile de se créer un profil Facebook, de mettre une photo, et puis toi, tu es là. Tel parle pour sa vie, et puis toi, tu parles. Ah non, quelle honte Mais quelle honte Mais comment une femme peut avoir, ne pas, comment une femme n'a pas, euh, comment on là, n'a pas euh, de retenue Elle expose sa vie mais elle n'a pas de retenue. Ah, elle n'a pas de jom, elle n'a pas de vergogne. Comment elle peut? Ça, c'est pas une histoire à dévoiler. Mais c'est quoi ton problème? Toi, tu parles, tu es sûr que tu connais ton père. Tu es sûr que tu connais ton père. Toi, tu es sûr que tu connais ton père. Les gens qui sont sûrs là, vous savez ici, on va se dire la vérité, d'accord? Parce que Ndella, elle n'a pas votre génération. Mais vous et moi là, on a la même génération. Oui. Ndella, elle n'a pas notre génération. Mais vous et moi, là, c'est-à-dire on a la même génération. Et puis si tu es plus jolie que moi, là, viens pointer ici, on n'a qu'à voir. Viens. Bien, si tu es plus intelligente, viens pointer ici, on va voir. Ah bon? Si tu as trop voyagé aussi, viens pointer ici, on va voir. Vous êtes de bonne à rien. Les gens qui s'amusent à rigoler de la vie des autres, vous n'êtes même pas capable d'avoir un salaire de 200 000. Vous ne pouvez pas avoir un salaire. C'est-à-dire, vous êtes chez vos parents, chez votre maman là-bas, à je ne sais pas dans quel quartier. Vous dormez sur, sur le toit de vos parents. Vous n'êtes même pas capable de payer une facture. Mais c'est toi, tu parles. Ou sinon, on vous a enceinté, on ne sait même pas où. Vous avez accouché, vous avez pris l'enfant, vous avez jeté, vous avez jeté l'enfant au village. On se connaît, on est de la même génération. Ce que tu penses que nous, on ne sait pas là, nous, on sait. Nous, on sait aussi. Les enfants que vous accouchez ici, et puis vous allez prendre pour jeter chez vos parents là, nous, on sait. Est-ce que tu connais le père de ton enfant Il y en a combien ici qui ont des enfants qui ne connaissent même pas le père Tellement tu couches avec 5, 6, 7, 8 mecs. Et puis tu es enceinte, et puis Mais j'avais couché avec Djili, hein. Ah, ça doit être Djili. Non, non, non, non. Babacar. Non, attends, attends. En tout cas, daal, je prends le Babacar. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Combien? Moi, je suis... En fait, je suis sénégalaise. J'habite au Sénégal. Je vis au Sénégal. J'investis au Sénégal. On se connaît. Vous pouvez prendre les, trucs d'Ondela, vous moquer d'Ondela parce que oui, peut-être qu'elle n'a pas les bons mots pour vous tiquer. Mais nous, moi et vous, là, toi et moi, on se connaît. Vous tombez enceinte, on sait pas de qui. Tu vas te cacher, tu accouches, tu prends l'enfant, tu jettes chez tes parents. C'est pas ça que tu fais. Et puis tu vas continuer ta vie. Euh, non, euh, euh, um, non, en fait, je suis une femme. Femme de quoi Tu es une femme et tu as écarté tes jambes, on t'a enceinte, tu n'es même pas capable de garder ton enfant, tu es jeté ça. Et puis c'est toi qui viens juger les gens. Tu juges les gens pourquoi Toi-même, tu connais ton père. Toi, tu connais ton père. Ah Est-ce que ta mère est sûre que le gars qui t'a donné le nom là, c'est ton père C'est pas sûr. Dans les sociétés sénégalaises, on voit ça tu es né, on te donne un nom Ndiaye. Or, ton vrai père, c'est pas lui. Ton vrai père, c'est un autre. On vous connaît, on se connaît. On se connaît. Si tu n'es pas content, zap. C'est-à-dire, moi, je ne mâche pas mes mots. Je ne suis pas née là que vous allez torturer ici et puis elle va se taire. Vous et moi, on a le même âge, on a la même génération, on n'a même pas encore 30 ans. Ça fait quoi On n'a qu'à se dire les vérités. Ta mère qui est chez toi, et puis elle, tu sais ton baptême. On ne sait pas le baptême, comment ça s'est passé. En tout cas, on t'explique que quand tu es né, on a tué des moutons. Mais est-ce que le père qui t'a déclaré là, est-ce que c'est lui ton vrai père Ah oui Demande à ta mère, est-ce que c'est ton dit maman Est-ce que lui c'est mon père Parce que tant là, ces temps là, c'est chaud. Ben c'est chaud. On sait pas c'est qui le père de qui. Est-ce que toi tu connais ton père Est-ce que ton enfant connaît son père Et puis c'est toi tu viens ouvrir ta bouche. Oui, non mais elle a pas honte d'exposer sa vie. Mais quelle honte quelle honte il y a d'avoir euh, euh, euh honte il y a euh, assumer. Tu assumes un enfant, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. J'ai eu un enfant, j'assume, c'est mon enfant. C'est le, sang de, c est, c est le sang de mon sang, c'est la chair de ma chair. Bon, je vais dire que euh, j'ai eu un enfant puis je ne montre pas. J'ai honte. Tu as honte de quoi Il y a plein de gens comme ça. Je prends le cas d'Elas Diouf. El Hadj Diouf ne connaissait pas son père c'est pas le meilleur euh, euh buteur de de de de de, de l'équipe nationale du Sénégal il n'a pas fait sa carrière et il y a il y a il a des cas il y a des cas comme ça il y a plein d'exemples qu'il faut prendre maintenant si vous prenez le cas que Ndéla Ndéla c'est Ndéla Nabou c'est Nabou Ndéla c'est Ndéla Ndéla elle a ses principes elle a ses convictions moi je défends que la petite lignée où les gens s'amusent à rigoler de son malheur. C'est que c'est un bonheur. Aujourd'hui, sa fille, je la connais. Sarah, je la connais. Et c'est une fille que je kiffe beaucoup. Parce qu'elle a sa vie, elle fait ses trucs et basta. Je suis qui pour juger Sarah Est-ce que moi, je suis mieux que Sarah Est-ce que moi-même qui veux pas... Est-ce que moi-même, je suis sûre de mon père Ben, je suis pas sûre de mon père aussi. que Je sais pas. Donc c'est pour vous dire que vous n'avez pas à vous moquer de quelqu'un qui vient, euh, euh, euh, comment dire, défendre, réclamer ou non pas réclamer, qui vient défendre ses convictions. Vous êtes là, vous rigolez. Toi, tu es sûr que ton père, c'est ton père. C'est pas vous, vous êtes enceinte ici, vous allez partir enlever les grossesses. Combien d'entre vous ont enlevé les grossesses On vous connaît. Maintenant, quand vous enlevez les grossesses, Après, vous avez le gros ventre. Si vous venez ici, eh, j'ai le gros ventre, je vais maigrir. Tu vas maigrir quoi Avec toutes les grosses que tu as enlevées, comment tu vas maigrir Vous avortez là-bas, tu, avortes, et puis, tu sais, viens dire, pourquoi elle a reconnu Toi, accouche. Tu es enceinte, tu n'accouches pas, tu vas avorter, c'est toi qui vas venir parler. Et puis, tu veux, eh, pourquoi Mais pourquoi elle, expose sa vie Il y a ça ñi koy wax noonu est-ce que xam ngeen est-ce que leer na leen ni que leen jur mooy seeni i baay ñu si bëri fii xamuñu seen i baay yow xamoo sa baay sa ndey xamul kuy sa baay nga jur doom xamoo kuy bàyyi mais yow yaa am làmmiñ ñu wax ay baayu jàmbur kii du tax mu exposé yow daal ko ci sa yoon. doo lijjanti foo xëy lijjanti loo jàpp te tëj sa gémmiñ gi réseaux sociaux du pour ñëpp am na yoo xam ne da ngay seetaan rek noppi réseaux sociaux du pour ñëpp ndax yow jàngoo jongoo xamoo luy i xamoo luy o xamoo conjugaison xamoo verbe xamoo dara yow yaa ngi noonu di dem rek lu nu wax rek nga ne yàgg xam te xamoo te leer nga ni sa baay du sa baay yow dañ laa tuddee sant dong xamoo sa baay dangaa juddoo rek ñu utal la sant rek fi mu ne xamoo sa baay ñu ne la kii sa baay te boo defoon gis ngeen bu ñu defoon fii si on appliquait le les tests ADN famille yu bëri nañ tas ndax ñu bari bëri xamuñu seen baay ndax nday gu réglé wul ndee la du seen moroom man nii may seen moroom réseaux sociaux nun ñi ñoo ko moom dañuy ambiance waxante ba mu neex ku ci am nag leneen loo bëgg a prouver libre à trois bu la neex xool ubbi naa sama message bindal ndeela xam nga ni ndeela du seen morom mun na defanteeg yéen <laughs> waaw défendre ma ndeera ci ci li muy wax ci viibam dama défendre ndeera ci nit ñi ñu ñu koy mokewee ñu ngi koy ñàkkalee fay di ko tuuteel ci ci courage bi mu am xam nga 27 ans moom laa am 27 années j'ai 27 ans 27 ans imaginel nga am doom pendant 27 ans gisuloo baayam ñëwut nga nekk ak moom imagine toi man rek j'ai un fils mon fils il quatre 4 ans fi mu nekk nii cette école woo nañ ma ma fay. pré-inscription septembre fay naa ko. parew parew ma woon fay sax nu woo ma <laughs> madame maire de tel kaay fay ma fay nga fay lu cher xale bi mel ngeen Malick ni mu mel ca vous avez vu mon fils il est insupportable et pourtant je paye je paye quatre cent et quelques mille parce qu'il est dans une école américaine une même pas une école une maternelle américaine je paye francs l'inscription le trimestre je paye jusqu'à six cent mille trois mois c'est cher c'est de l'argent c'est beaucoup d'argent pour juste une maternelle Mais imaginez-vous prendre un soin d'un enfant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 20 ans, 27 ans. gisuloo baayam kooku noonu bu waxee au contraire dangeen ko war a uuf xam ne li ko dal dal na leen yéen mii di wax dal na leen ndax xamu leen seen baay seen nday ñàkk jom moo tax eggoo leen fi doomu diw egg lii la di ah ku fi mer daal wool sa ndey ba mu ñëw nga ne ko yaay mu ne la naa ma ne ko gis nga man nii dëgg xool naa ba xool jur nga moom fa ma war a juree xam naa sama baay mais mënumaa avancé lu tax sa ndey wax la li tax ndax bu dee am baay moo tax a tekki kon ñu bëri duñ tekki ndax am baay taxut a tekki xam nga lan mooy tax a tekki jom volonté ak ardeur te jàpp te woo baay moo yow ñaata nit ñoo fi xamul seeni baay bari na ñaata nit ñoo fi xamul seeni baay bëri nañ mais lu nu wax rek nga ne mon père et ma mère te yow amoo père amoo mère fi mu ne yow xamul sax foo jógee dan laa recruter rek seen kër jox la sant rek nga décorer la noonu te li ma ci gën a metti mooy mën ngaa am nday am baay am lu la neex te doo tekki dara tekki woo saala yaay ndeer yow yaay nekk ci dëkk bi di di tembambaalu te pourtant am nga sa papa am nga sa nday abandonné leen dem ut sa appartement almadi di lambi soo lu nu wax nga ne yaa nga xam te xamoo ko di ëmb di yàq biir di naan ay comprimé di dugal sa comprimé sa diggante tànk xale bi day yàqu rek nga xëy sa biir bi gonflé naan waa Nabou sa forme bi dafa rafet nan lay def pour am ventre plat li nga yàq ngay lijjanti bu pare balaa ñëw ci man yéen xam ngeen di ndeel a ngeen di tottiré ndeel a ngeen di tottiré ndeel a ngeen di tottiré ok ngeen di nee ngeen di tottire muy patikat yi pët pëti waaye man man ak yéen a bokk génération li fi dëkk bi yëpp xam nañ ko mën ngeen a nettali mën ngeen dugg ci live jàmbur yi di prouver am te bëggoo leen c'est que à moment donné gis ngeen euh, xam nga comportement nit ki dafay wane lu bëri ci dundam parce que tey jii boo nekkee stable yàlla sutura la may la sutura nga am sa liggéey am sa njaboot am sa jëkkër am say doom xam nga am xol bu laa biir macha allah tabaarakalla ngay xam nga ngay lekk trois fois par jour di ndekki di añ di reer di ñogonal kooku talul wax lu ñaaw ndax suur na mais ka xiif ka amul ndoxu Evian amul clim man laa ba muy nelaw ay yambax ne yam day nelaw nu kay muy muy wokk naan nii ndax kenn xamul lu nekk ci malaay ay darab yu oos kër gu tàng te ventilo tàkkul nga xool gauche baay amul liggéey xool droite nday amul liggéey yow mii sax bopp amoo liggéey xam nga kooku noonu xolam day tàng day tàng day naturel bu gisee ko romb sax mu ni ii kii ni ma ko bañee bañoo ko kat-kat ga mu am nga amut clim ga mu am nga amut sourire ga mu am nga amut waa kay loolu la fi mu nekk nii boo sañoon di làkk français di roule ay air comme ça là oui vous savez en fait moi je n'ai pas frappé la bonne en fait c'est elle qui m'a attaqué et puis j'ai riposté tubaab yooyu tubaab ndaygu la fonk ndaygu la soutenir yooyu tubaab ndaygu la soutenir moo la koy jàpp moo moo moo moo moo moo la koy permettre nga am ko waaye nga am nday boo xam ne toppatoowu sa éducation jàngoo jongoo sa tur sax boo koy bind da ngay woo nit whatsapp li ci li nekk ci whatsapp dafa bëri ñi am whatsapp ñu si bëri jànguñu et illettré lañ ah, ah yow eh, eh, eh, ah, Fatou Fatou Mbacké ma message bi lu mu bind nii seeko tuwa pa lu muy wax nii kii li muy seeku waa liiralal ma ñaata ngeen fi <laughs> ñaata ngeen fi moo tax ngeen di vocal whatsapp bu ñu defoon bu ñu calculer woon pourcentage bu ñu calculer woon pourcentage économique whatsapp Sénégal lay number wan ndax fii jànguñu whatsapp bi njër di vocal man ku ma vocal dama la tontu da ngay da ngay write down <laughs> da ngay write down ma answer la mais doo ma vocal man ma lay tontu pourquoi vocal vocal kay sama jëkkër laay vocal. di neexal baat naa ko bébé dama la nam mais nga nekk ma ma nekk yow ngay jeune may muy góor muy jigéen bind ma ma tontu lam du la vocal waaye vocal di def euh, kii Fan Mbakke ma orange sama kër dafa mel ni dafa jeex ñu nu ñu mënee sàcc liiralal ma lii euh, xale bu ndaw xale bu ndaw liiralal la te yàlla moo nekk xale mooy genre xale bi amul bàyyi yooyu rek liiralal la message bi na la nee na votre solde est insuffisant mooy lan. solde insuffisant mooy lan mooy sa crédit jeex na jàngoo leen toog leen ngeen jàng ngeen bañ xam nga jàng sa opportunité la ndax ñëpp amuñu ko waaw kay kon ku am ndey ju la jàngal ba nga egg fa nga war a egg di bind sa tur dégg français dégg ang di démerde bu kooku da nga tourné sa yaay moom nga jàkkaarloo nga ne ko yaay mu ne nag nga ne ko jëf yaay gàcc gàcc gaaraama yow yaay boo fi nekkul woon làmbay ñaaw waaw kay yéen maa mun defanteeg yéen whatsapp bi li ne dafa bëri changer photo profit moom mën ngeen ko bu ñëw ngeen snap ko Ayana Kamara moom ngeen bañ ngeen bañ a gis. oh jaaja sape sape melay jaaja xam nga ne xamante nañ ñi ngeen di def déggoo leen français déggoo leen tubaab déggoo leen anglais you just like that a simple basic people you just working like that you don't know nothing about the life just hating people for nothing. yow relax yourself am na yoo xam ne day mel ni gis Angleterre ak pomme de terre bokkut. am na xeex yoo xam ne bokkuñu conviction nit yu bari ñuy partage vidéo yi laay waxal di di di mokkewul jàngoo leen ndax baleen leen jàngoon xam ni kii di wax ngeen xam ne kii elle défend sa cause elle défend sa cause di ndax ku mu neex nga défendre say cause Nelson la euh, Nelson Mandela fii la nekk défendre apartheid lijjanti leen ko kooku dépend na kaawam kii keneen keneen ak keneen ak keneen ku ci nekk defendre nga sa kaa léegi Ndella Madior dafa am kaawam mais ngeen bàyyi ko mu défendre kaawam boo leen ci mënul wax farata wax leen ci lu lu lu sérieux ngeen bàyyi ko mu dem mais quant à ko naan waaw une femme battante au fond li ngay wax nii gëmmaloo ko frégé wala ñeente ma chérie yaa ngi lëre sa bopp mais Ndella li muy am am na ko ndax au moins presse yaa ngi koy woo au moins mu ngi jëf leen jëf leen teg président yi au moins turam am na fu mu egg ci lu baax mais yow sa tur fu mu egg fu dul ci Facebook fii si commentaire nit ñi fi mu ne nii yàkkamte ngaa am 1000 francs ba gën a paas jàkkaarloo ak man di wax man waaye xam nga man keeru ma la <laughs> man fi nekk nii maa ngi samay conteneur yu war a ñëw nu war a ubbi dash double XXL xale yi sàjj fa taluma benn benn benn coow bojo bojo waaw kay maa ngi la ndax bu leen sañse bu dee sañse rek bool bu dee sañse foo leen ma woo ma wuyu si leen waaw bu dee happiness enjoyment fu leen woo ma wuyus leen bàkk yéen tamit màgg yéen a mën defante ci biir réseaux sociaux yi sunu réseaux sociaux yi màgg yéen kenn du ci xaj màgg yéen la da ñu bëgg la ba di la woo donc loolu mooy kaawu Ndella Madior ñu ñëw ci kaawu Sada Kane ah, ñëw ci kaawu Sada ndax zaaru Sada Kane yi man bañ naa ko sax genre Sara Kaniye mooy genre goo xam ne xam nga Sara kan ko ko xool xam ne dafa wowle daa wowle ba léppam wow fi mu ne nii moom bu toogee rek def nii rek bu toogee def nii rek foto xool leen photo Sara bu toogee def nii rek mbete ku ñàkk ndox xam ngeen ni Sara kii man xaw ma ban genre xeetu nit la waaye genre Sara Kane yee si bari ànd ak yow. trompé la jox la enfant réer gi dëkk bi nga koy woo du jot boîte vocale naan la déménager nag tuxu na waaye yéen a ko def yéen a ko def di ku ci teewoon sa bopp da jàpp sa liggéey bu ndaw googu di da yéen yu bari du la ci fekk je t'aime moi aussi dama ko ragal ci jamono ji ñu toll sama rakk bu sax loolu laa koy wax je t'aime moi aussi je laa ci xam waaye je t'aime moi aussi moom ngeen fonk si liggéey ndax genre saadakat ñi ku leen moytu danañ la yóbbu tool 27 ans Sada Kane am nga fit Sada tiita kii tëpp xanaa sax mu ne sax cinq ans après nga ñëw récupérer sa doom même bu dee sax say amu fa sax mais nga reconnaître sa doom doom dafa foor waaye nga ne yem ya caa xam nga ni fi mu nekk nii <laughs> xaaral noppi sax waaye moom Sada moom yow bu bu yow moom hommage moom doo ko am fii Sénégal buñ la naree hommage rendre hommage man maa ci taxaw ne kii duñ ko rendre fii lu lay rendre omage Sada Kane yow sa morom yi nekk fu nu rendre leen hommage. yow kenn du la rendre hommage Saare Kane bu dee yaa may dégg wala bu dee message bi di ko liir man maa la ne fii si dëkk bi kenn du la rendre hommage te yaa ngi dem ci mag xam nga fi mu nekk ne yow 90 ans yow 90 ans sorante woo leen xam nga li ma wax kenn ko rendre hommage Saare Kane fii lu mu def benn monument du benn monument journal yow journaliste boo xam ne kenn xamula ndee la maa joore la may bës muy rabbi rabbi nii mel ni rabu maa ngi xaar ba nga génn fi def interview sorti boo sottee ba ma di sorti la doo <laughs> dootoo ko defet di lambari lamb rek tuutaayam bi man man damaa xamul sax tataandeel ak ni nga ko jongomaa man loo gis saari kan xam naa làmmiñam ma neex rek foo leen gis góor bu tuuti góor ñu tuuti dama leen ragal foo leen gis góor bu tuuti rek làmmiñam ma neex dañuy wax ba wër la capable nañ lu ne mais tata muñal rek yàlla baax na saaraa moom gëm naa ni que incha allahu rabbi euh, yàlla baax na daal. waaw yàlla baax na